moom. Obama. Mhm. Mhm. Obama mu ngi nii Obama ban charisme moo nekkoon ci moom ñool ca kaw nangam nangam dara nekk ci affaire bi utuñ charisme waaye Jomaay Fay tey président yi fi nekk moo leen gën a jàng Senghor lan la woon ban diplôme la am. Mhm. Senghor. poète la woon rek. bindkat la woon rek. di tagg nii di kii nii rek poète la woon. Abdou Diouf ban diplôme la amoon ndaw la boo xam ne dafa jàngoon ñëw nii rek. toppoon ci Senghor topp ci Senghor bañ xëy dénk ko réew mi Ablaye Wade nga mën a wax ne moo tolloog Diomaye ci xam-xam Macky Sall bii ñuy wax naan ingénieur xaw ma lan pétrole la nangam pétrole seen gi nangam nangam Macky lan la jàng ak lan la ay yem diplôme Diomaye buñ fàtte ne ñun xam-xam la ñuy utee nit nga am vision mën a liggéey réew mi Diomaye dafa dugg université def droit te droit lu mu dee dee di nga def sept ans nga pare ci droit dem ENAM concours ENAM nga xam ne ENAM moo yore réew mi ci mhm. boppam. Mhm. foofu ngay génnee nekk juriste. wala nga nekk diplomate wala nga nekk na nangam nangam nga jàng fa ba am say ay lijaasa yaa ngi dégg ñëw taxaw gis nga karisma wala nit ak nit loolu du kii fii mun ñëw jël handicapé la fañ sax mu nekk président pourquoi pas mun ta nekk. mun nañoo jëli benn borom xam-xam boo xam ne am na benn président boo xam ne fii. Euh, maa ngi doon xool documentaire am. ci mhm. dëkk. du sol sax t-shirt bu baax te pourtant présent la bu doxal réew ma tey jomaay buñ fàtte ne ñàkk solo géeg yooyu am na protocole su duggee ci biir pale bi même pas deux mois génnaat ba protocole yi ko lépp dañ koy jàng mhm. dañ la koy dañ la koy won mhm. nit ko du da ngay tëb rek dugg ci deru rek ñu ne la lii ak lii ñun jomaay toppewuñ ko rafet toppee ko liñ ko toppee mooy suñu réew mii di dox na sol caaya te man loolu laa gëm man tey su ma sañoon billaahi muy sol caayal jamput du sol ay padam ñaxet su toogee ba ci kanam ci pale bi su amee weekend mu dem ko ci toolam yi dem bayi aka ñuy neex africain lañ dañoo hmm. war a wane suñ bopp suñ culture kaw-kaw gi ñu war a doon dañ koo war a wane man loolu moo may neex hmm. Yaya Jammeh ba muy ñëw ci réew mi quatre-vingt-quatorze ngi am ay vingt-sept ans wala nangam tuñ yaa ngi xar ci suuf ba ca kaw tuñuy wow kong ba muy ñëw di nekk président nu meloo amutoon benn charisme amutoon waaye dem na ba nga xam ne kii foo ko gis xam ne kii kilifa la kon nañ génn ci seen sabotage yooyu ay kii nangam charisme kii amul nangam ak nangam fii ku fi solu rafet ku fi defaru rafet nañ ñu may ay jàpp <laughs> jomaay toppee wuñ ko loolu. na sol ay padam ñaxeer. Mm. sol ab caayam te dem ca tool ya. waaye na doxal Sénégal. ok dañ ñu may jàmm. ok Christophe ci premier ci premier prise de parole am ne dina xeex lu jëm ci wàllum guerre bi lu jëm ci wàllum dundu gu cher gi ak yu ni mel jàpp nga ne dina mën a yomb. man su ma amee lu ma koy conseil waaw. pour mu mën a nekk ci jàmmam mën a liggéey. Mm. xam nga sénégalais nag dafa yàkkamti. Mm-hmm. jomaay nekk na président rek léegi nga dégg critique yi. léegi nga dégg ma man su ma koy conseil mhm. bu ci njëkk mooy luyaas bi nga xam ne moo nekk ci biir Dakar ta nga xam ne tey deux chambre salon ay cinq cent mille nañ ko yóbbu deux chambre salon yi ñu yóbbu cinq cent mille nañ ko yóbbu ba cent cinquante mille parce que ñiy tabax tamit da ngay gis nañ gars yi dañuy naan dañoo investir inversir mais li nga investir pour terme la mhm. da ngaa investir loo xam ne dafa war a dem Mhm. waaye investir bu ko léegi léegi kon bul investir loolu amul fenn parce que société soo ko defaree da nga koo defar di jaay di jaay say produit di ci gagné peuple bi di ci gagné muy continuer di continuer ba àddina bi tukki loolu mooy investir. waaye tabax seen i immeuble. def mhm. ci lu nekk ba pare taxaw naa damaa leb banque ak damaa nangam. Mhm. ba nga xamee mënoo ko bu ko def. luyaas bi su ko defee benn. wàññi ko dana ci génn. Euh, dund gi mu fexe ba mu wàññeeku. su ko defee gis nga sénégalais yi suñ amee fuñ tëdd am fu ñuy lekk kanam la ca des mun nañoo xaaragum. ok li nga xam ne mooy corruption bi. Mhm. dafa war a jeex ger dafa war a jeex ci Sénégal. Mhm. gis nga ger moo ñu tardeel ger moo ñu tardeel Cheikh Bamba Cheikh Bamba yow mii wóor na la yow mii di journaliste gis nga seen nit koo xam ne yaag moom yéen a doon ànd tey nga tourné gis ko mu yore ay hectares yi hectares xëy na du ko tur la koy jëlee. ci ger rek wala ci nangam wala ci nangam la koy defee. ok loolu nag te lépp ñun ñoo ko bokk loolu yëpp dafa war a jeex lii moo war a jeex ci boppam su ko defee rek incha allah lépp dana Sénégal dina tegu ci kanam. ok léegi Cheikh bi xam naa dañuy jeexalee ko ci euh, Khalifa Sall ban xayma ngay def ci élection yi nga xam ne jàll na ci dafa gën a delluwaat gannaaw Idrissa Seck également ak Amadou Ba euh, booy xol en tout cas euh, ku mel ni sax Khalifa Sall ak Idrissa Seck boo doon ñu xaymaa rek dèjà ci wàcc bu ñu wàcc lan moo ko waral. Idrissa Seck moom su fekkoon ne maay moom. te hmm. jamonoy deux mille ba ma paree ci politique boobu ci laa waroon a wàcc ci bàyyi politique dem nekkaat ci leneen wala xool Sénégal ci beneen façon bu ma leen di mën a dimbalee Sénégal jëm ci kanam parce que foofu moom kooku moom jeexaloon na ci politique ba pare. Hmm. parce que luy alquran di wax mu zabzabiina wala ilaa haawulaay wala ilaa haawulaay ki nga xam ne mu zabzabiina farut fenn day dem fee dem fee boobu la xam ne lay daal. retraite jël na ko na dem toog xam ne pare na ca politique keneen ki mooy Khalifa Sall. waaw Khalifa Sall dañ koy jay xam nga Sénégal dañ lay jay naan la PS dañoo xam politique politique man xam politique laa xamul mooy lan ak jàng politique nangam fekkee politique ay stratégie la yoo xam ni ay naxanteeg muusante la xamal ne loolu du politique bu baax peut-être ci loolu la nekkoon dafa nax boppam. yow munuñ laa jël tëj la ci kaso def la li yëpp nga nekk fi di naxantu ba bëgg a dem mooy xalifa Sall ba mu génnee ci Pastef ak projet bi nga xam ne Sénégal ñëpp dañoo boole woon yaakaar am yaakaar ci ñoom ba mu ci génnee la yàqal boppam te ba ilaa yow mi diin laa lay wax nii de Sénégal pare nañ ci moom dootul baax la ci kenn laa xam ne su góorgóorloo ñëwaat mhm. sénégalais yi mun nañ koo baal mooy Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall dafa yàkkamte ndaw la man naw naa ko ci xam-xamam. Mhm. naw naa ko ci ndaw gum nekkoon waaye dafa amoon lu doon défendre. Mhm. lam doon défendre tey mooy féetewoo ci ndaw yi xam lañ ci def waaye ba mu demee ba dugg ci politique bi gis ne benn bunt boo xam ne gis nga xaalis su nekkul ci yow soo ko commencé am. Mhm. dafa am saytaane mun na laa moom bu gaaw ndax li ngay gis la dugg-dugg yi ngay dugg gis financement yi affaire yooyu daf lay yóbbu ci beneen level. ok lëbal boobu mu duggoon nag yaakaar ne tey dafay ñëw rek gaa yi ànd. Hmm. ndax boppam parce que nit ñi ni ko doon toppee di ko déglu mu yaakaar ne su duggee ci politique bi day gagné far mu dugg ci loo xam ne yoonam nekku ca moo ko yàqal. mais uh-huh. Pape Pape Pape euh, Djibril Fall. Mm-hmm. tey ci politique tey su jomaay jëloon un moom moo waroon a jël deuxième ndax ndaw la ci loolu waaye dafa yàqal dafa teel a yàqal boppam. ok mais su góorgóorloo. Mhm. delluwaat gannaaw bañ a am complexe ci loolu. dina am mais Khalifa Sall moom ak Idrissa Seck moom. Mhm. dama lay wax na la retraite jeex na ci ñoom xam na lan la ñu war a def. waaw dem ubbi seen cabinet seet ci leneen lu ñuy liggéey bu da dem maire sax laa la wax Grand Yoff gi su ko doon Khalifa Sall du oote du ko am man maa la wax loolu. ok ku mel ne Amadou Ba pare na ci politique moom tamit. maireem gii. gëm naa su ci wàccee mooy pare na ci ga parce que gars pare na ci politique ñu ngi noonu. ok réew mi xale yee yeewu. ku mel ne Amadou ku mel ne Amadou Ba nag dèjà coow li bëri na ci moom ñu naan sax président Macky Sall moo ko contrer parce que moo génnee Ousmane Sonko génnee Bassirou et que gis nañ également amoon na des difficultés ci par rapport ak campagne bi ci wàllum koppar ak ni mel dèjà Amadou Ba ëllëgëm ñi naan dafa war a wéy di toog APR ñi naan daa war a créer parti politique am euh, nga ko jàppee. Amadou Ba day gannaaw yor na Amadou Ba jour ba Macky Sall Ba moo jaay boppam Amadou Ba jour ba Macky Sall taxawa ne fomm naa élection yi jour le vingt cinq boobu la Amadou Ba waroon a fekku pare moom demal boppam mhm. mais Amadou Ba retour gum retour ci a ah, ci Macky Sall mhm. boobu la nit ñi suur xam ne kii moom mooy Macky kon nit ñuy waxee jomaay mooy Sonko Sonko mooy jomaay mhm. dañoo xam ne Amadou Ba mooy Macky Macky mooy Amadou Ba maanaam Amadou Ba am na lim ragal lu tax demalul boppam te xaacuwul demal boppam gëmul boppam gëmut Sénégal parce que xam na ne su bàyyi woon Macky Macky ci diggante bi lum ndaw ndaw am na lu mu koy toppee su ko neexee léegi dugal ko ci kaso gi ndax am na jëfam yu mu jëf yu bëri. Mhm. ci biir Sénégal ndax xaalis bi mu yor nii du lum liggéey lum jël te ay dossier af of nag mu ngi foofu tege ci moom mii moom moom moom Amadou Ba. kon Ba hmm. Hmm. amul lu muy wax moom ak Macky gi yooyu yëpp ñoo bokk benn àtte bi Amadou Ba su créé parti parti boobu fan lay def jëmul fenn hmm. Amadou Ba nekkul Macky ko bëggoon a nekkar rek waaye Amadou Ba nekkul Amadou Ba nit ku am xaalis la baax ci xaalisam nit ku baax la nag ma wax la Amadou Ba man xam naa nit ku baax la ci yar ci teggin ci jëflanteeg nit man nag mosuma ko lekkal dërëm waaye xam naa ay journaliste yoo xam ni Amadou Ba sax moo leen doon fay. ah li ma xam ci réew mi dafa bëri. li nga xam man maa li nga xam bëri na de. rasulullah ay journaliste li ma xam ci réew mi. li ma xam ci réew mi dafa bëri te man du ma la wax mukk bamba waaw li ma lay wax loo xam ne awma ci preuve man lépp lu ma amul preuve teg ko ci taabal ji soxlawu ma ay journaliste yoo xam ne mooy yëkkati leen fay journaliste yu mag ci réew mi nga xam ne dañ leen di déglu <laughs> Amadou Ba mii mooy yëkkati chaque fin de mois di leen jox yëkkati financement jox leen am na comme ci jëndal 4-4 ah bon bu rafet boo xam ne 4x4 bi jar na quatre vingt et quelques millions. góor la wala jigéen. lu ma lay wax ni bi waaye yow tamit waaye yow góor na naan ma ak jigéen jigéen bi amul dara waaye góor góor laa la wax. ok lu ma lay wax ni du caaxaan parce que rasulullah xam naa journaliste boo xam ne sept milliards billahi ak koor gi ma wax nii jox nañ ko ko pour benn benn benn marché. sept milliards sept milliards ay preuve yu leer. ok réew mi li ma fi xam de gis nga fii ma toog nii. Hmm. dama lay wax man réew mi nu muy doxee nit ñi di am information yu leer man ay documents yu leer laay am yoo xam ne damay ñëw di la ko tegal na la bàmb mu ngi nii seetal lépp lu ma wax ndax tegu mu ko ci kaw taabal ji. ok lépp lu may wax dama koy teg ci kaw taabal ji. ci réew mi laa bokk de. Mhm. Mhm. léegi xam naa waxtu yi xaw na ñëw ah. dab mais laaj mujj bi rek mooy kañ la MC Niass di dellusiwaat euh, Sénégal gannaaw am na si am na léegi am na. rabbil alamin man daal maa ngi nii incha allah yàggatul dinaa ñibbisi. Ah. su ma ñibbisi nag. waaw koy préparé. wax dëgg yàlla. ndax kon Bamba lu ma ko waxee man Kaolack laa am. waaw. Kaolack laay tiitaroo. Bamba maa ngi lay wax soxlawuma dara ci àddina. Mhm. lu luul bugguma sama benn ruuxu. su ma demee ba toll ci sukuraat. ma gis bu mujj ci Kaolack ma gis ne Kaolack defar nañ ko. Mhm. man nag li may wax mooy peuple Kaolack. dama bëgg ñu booloo ut ku mel ni kon Sonko ñu jiital ko ci Kaolack ñun ñëpp lu ñu neex ak lu ñu naqari ñu jël ne kooku mooy suñu Sonko kooku ñu nekk ci gannaaw mu xeexal ñu Kaolack parce que man su ma toogee gis Kaffrine gii barki démb gii te Kaolack mbay mi foofu la gën a doxee muy gerte gi muy dugub bi muy bési bi muy lépp ma gis ne tey Kaffrine gii rek. matul deux ans wala trois ans ñu defar ko ba mu rafet nii mu raw kaw la gën a développé kaw la mhm. loolu day métti ci sama xol ok moo tax man pare naa lépp lu ma mën pour xeex Kaolack mhm. pour Kaolack jëm ci kanam pour Kaolack rafet